À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 864 75 15. waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ba jumaa ji ak si fi mu ak si tey di ziar bu baax suñu di sëriñ Moustapha Diatara di ko jégalu bu baax itam ci jotaay ginnaaw loolu ngir njëkk njëkk ak waxtu bi rek dañ ne woon nañ waxtaan ci dawru tasawuf fi tazkiyati nafs taalimu sëriñ di radiyallahu anhu mooy taxawaay bi tasawuf am ci defar jëmm ak sellal bakkanu doomu aadama loolu ñu jël ci njàngaleem sëriñ bi muy euh, delluwaay boo xam ni dañ ko ci joxe comme exemple xam ngeen ne tasawuf mooy gën jaa kawe anami dundu diine dundu diine la ca gën a kawe mooy tasawuf yàlla dogal nag xar kanamam am ay xajam-xajam yoo xam ni xëy na ay nit mën naa ñëw toog def nañ ko ci ba ñu bari xamatuñ dëgg dëgg tasawuf waaye mooy buntu mucc bi nga xam ne insha allah ci waxtaan wi danañ xam ne lan mooy tasawuf xam ne lan mooy euh, tazkiya ak jihaadu nafs indi itam lan mooy bakkan ak aqabaatu nafs buñ ko waxee lan lañuy jublu insha allahu taala tasawuf xam ngeen ne ab xaaj la ci diine mooy xaajub ñetteel bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudde woon al ihsaan ci xadiisu sayidna jibril alayhi salaam alquran tazkiya la koy tudde yenn boroom xam-xam yi di ko tudde ilmu suluk sayidna jibril dafa ñëw ci rasulullah salaam alayhi laaj ko ay laaj bokk na ca lan mooy imaan lan mooy islaam lan mooy ihsaan ba mu ko tontoo ba noppi ba jibril Seydina Jibril génn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne fa innahu Jibril ataakum yuallimukum diinakum dafa ñëwoon di leen xamal seen diine borom xam-xam yi tànqe ci balluloo ci xadis boobu ne xadis bi làmboo na léppi diine ndax islaam mi ngi ci ak imaan ak ihsaan islaam mooy wàllu jëf yi nga xam ne cër yi ñoo koy jëf ñu di ko tuddee charia léeg-léeg borom xam-xam yi koy gëstu tudd al fuqaha imaan mooy xaaju bi la bi bi aju ci ngëm xol ngëm yi ñu war a fas ci xol ci wàllu gëm yàlla gëm malayka yi gëm téere yi gëm yonante yi gëm bispent yi gëmu ab dogal yooyu itam am na boroom xam-xam yu féetewoo di ko gëstu mooy ulamaawu tawxiid ak ulamaawu kalaam ak tur yi ñu am yëpp xaaju ñetteel bi yonent bi wax ci xadis bi nag mooy ixsaan te mooy wàllu dundu dundug ruux ak xol bu set ak an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak ñaari maqaama la fa in lam takun fa innahu yaraak mooy ngay bàyyi xel yàlla xam ne waxtu ne mi ngi jandoog yow ba gën a kawe nag mooy nag annaka taraahu kon loolu it xaaj la boo xam ne dafa am borom xam-xam yu ko yittewoo ñooñu mooy asuufiya ñoo koy gëstu xam xóot xóot yi xam sew-sew yi xam nit kii nan lay def ba tàqalikoo gàllankoor yi nga xam ne mooy gàllankoor bakkanam raxas xolam ruuxam set mu mën a jan janloog màgg suñu borom gi tabaaraka wa laa mën a jan janloog taarub suñu borom bi tabaaraka wa taala ci lépp muy xam-xam boo xam ni xam-xam boppam la nii tawxiid nekkee xam-xam fiq nekkee ko xam-xam noonu la tasawuf nekkee xam-xam Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardaahu jàngaloon nañu ne al ilmu inda al ulamaai yanqasim li zahirin wa batinin sirran kutim zahiruhu al muslihu lil amali wal batinu al muslihu lil ahwali fa awalun bismi tafaquhin duci wa thaani anhum bi tasawufin waci summata taqdimu lfata alfiqha ala tasawufin wujubuhu qad injala faman ila ixlaali lawalin tana intama halaka fi dunya bi xukmi alulama wa man yakun bi thaani daa ixlaali yahlik gadan bi xukmi dil jalaali fa waajibun ala alcibaadi turan jamcuhuma likay yanaalu l ajra wax na ne xam-xam ñaari xaaji xam-xam mu am xam-xam bi fés ñu xam-xamu zahir ak xam-xam boo xam ne xam-xamu baatin lañ koy tuddee ñeneen ñu di ko tuddee xam-xamu xaqiiqa ñenn ñi di ko tuddee yeneen i tur lu mën a xew sëñ wax ne xam-xam bu njëkk bi nga xam ne mooy xam-xamu zahir mooy yéwénal cër yi ak seeni jëf ak seeni atte mbooleem jëfi cër yi ak seeni atte xam-xam boobu moo koy lijjanti muy xam-xamu fiq jëfi xol yi nag ak lu aju ci jàngoro xol yeeg yi ci aju yooyu xam-xamu baatin bii moo koy lijjanti muy xam-xamu tasawuf sëñ bi wax ne kenn ku ne war naa jiital fiq doo ko caa nag jàng tasawuf ndax ñaar yooyu benn mënu ci ñàkk soo soo doyadalee xam-xamu fiq fii ci adduna moom lala la borom xam-xam yi àtte teg la ay daan boo doyee dalee nag xam-xamu tasawuf ëllëg ca ngay sànku kon mooy yoon waa tasawuf ca la saxaaba yi nekkoon ak taabi'un yi wax nag ne ginnaaw bi wax ne sax cosaanul yoon wi du dara muy al uqufu ala al ibada wal inqitaau ila allahi taala wal iraadu an zuxrufi dunya wa zinatiha wa zuhdu fi ma yuqbilu alayhi al min laddatin wa maalin wa jah wal infiraadu an al xalqi fi l xalwati lil ibaada ne tasawuf du dara lu may ci jaamu yàlla ak dogu ci wuti sa borom tabaaraka wa taala dëddu àdduna yi dëddu itam li nga xam ne moom la nit ñi dëgg ma muy alal ak daraja ak àdduna te yow nga wéet ak sa borom ngay wéet ak sa borom ci di ko jaamu di ko bàyyi xel ci lépp nee loolu rek mooy tasawuf loolu nag dafa wax ne moom Ibnu dund dafa wax ne ñépp ci nekkoon ci saxaaba ya bi nga xamee ne buur yi al mulkul adud tàmbali na te mooy ñi nga xam ne nguur lañ doon dund rek yàlla dogal booba adduna ubbiku ci ñoom alal ji bari xéewal yi bari ñu bari nag ci nit ñi dëgmal adduna boobee nee na ña des ca la saxaaba ya bàyyi woon ñoo ñee lañu tuddee as suufiya wal mutasawifa loolu wax ju leer la joo xam ne doy na ci leeral cosaanu tasawu gis ngeen ne te Ibnu Xaldun dafa wax ne ci xarnum ñaareel bi la loolu xew te ci xarnu ñaareel boobu lañu gis ñu tàmbali tuddi ay nit ay mutasawif ak suufi ak yu gis nañ Sufyaanu Sawri génn àdduna ci atum téeméer ak juróom-benn fukk ak benn wax na ne lawlaa abu haasimin suufi maa araftu daqaa'iqa arriyaa loolu mi ngi ci allumma mi ngi ci fataawal xadisiya bu ibnu xajar al haythami mi ngi ci sifatu safa bu ibnu xajar as ibnul jawzi bokk gis nañ ku mel ne xasanul basri génn àdduna ci atum téeméer ak fukk mu wax ne raaytu suufiyan fi lmataaf fa aataytuhu cheyan fa qaala maay arbaatu dawaaniqa takfii nii nga xam ab suufi nee moom laa dajel ca fa ñuy wëre kaaba ga ma war koo jox am lu mu ko bëgg a jox mu ne ma li ma yor doy ma nangu ta jël li ma koy jox loolu mi ngi ci at lu ma nekk ci fatawal xadis ya bu xëy mi ak yeneen ak yeneen am na kenn ci ulamaul xadis musaawiril warraq génnat na ci atum téeméer ak juróom fukk kooku gis nañ ci wayam muy wax tasawafa kay yuqaala lahu aminu wa maa yaani tasawufa wal amaana wa lam yurid wa lam yuridil ilaha bihi walakin arada bihi tariqa ila alxiyaana nga xam ne kon tur bi rek ci xarnu ñaareel bi foofee lañ ko tàmbalee tuddee ña desoon ca la saxaaba ya bàyyi woon ak taabiroon ya ak ñi dëggaloon mu am ay cosaan cosaan yi mooy ci gàttal sëriñ bi wayal nañu ko mboolem borom xam-xam yi tasawuf yi lañ dëppoo ne mooy cosaani tasawuf sëriñ bi leeral nañu ko ci bayit yu gàtt wax na ne fa li tasawufi usulun tu'rafu tisata ashyaa la daa man yaarifu awaluha talaasumu lkitaabi wa sunnati lmuxtaari lissawaabi wa tarku lahwaai wa tarku lbidaci kadaaka tabdiilu suyuuxi lxushaci ru'yatu acdaarin li kulli lxalqi idaamatu lwirdi li wajhi lxaqi wa udda minha tarku jumlati ruxas wa tarku tawilin fala zarruqu nas mooy juróom-ñeent la ba ca jëkk ci cosaan yi principe bi tasawuf mooy taqoog alquran ak taqoog sunna si yonente bi sallallahu alayhi la ca wér ak moytu topp bànneex moytu bidaa warmaal sëriñ si ragal yàlla kenn ku ne ci yi dem nga gisal ko ngànt dogal ko ngànt xam ne ñépp ñi ngi ci masi a sunu borom xabdati rahman la ko suñ la ko suñ tuwaa waxe sax ca masalikul jinaan boole kook di saxal wérd te moytu nag di topp yi yomb ci diine nee na loolu ak moytu tawil nee na loolu mooy usuli tasawuf ni ko Cheikh Zarruq Ahmad Zarruq waxe indiwaat na ko feneen wax ne inna usul al qawmi sabatun tura atxafana bi kulliha rabbul wara al ictisaamu bi kitaabillahi wal iqtidaau bi rasulillahi aklul xalaali wajtinaabu lmaasiya xaamisuha kaful ada faltakfiya saadisuha al adaau lil xuquqi wa tawbatu min jumlati wax na ko feneen dafa wax ne juróom-ñaar la te loolu mooy li imaamu Sha'raani wax mooy mooy ci téereb yàlla bi roy ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di jëfandikoo lu lew moytu mooy yàlla fegu ci bépp lor bañ a lor kenn ci mbindeef yi tey xàq yi nga amee kenn ku ne nga jox ko ko ba mat sëkk tàmbalee ko ci sa boroom yónnente bi sëriñ bi say wayjur mbokk yi nga dëkkat dëkkandoo yi ñoo ñëpp xàq ji nga leen amee nga jox leen ko ba mat sëkk ak saxoo tuub loolu wax yooyu mooy mooy mooy usulu tasawuf teewul borom xam-xami tasawuf yi wax na ni am nay ponk yoo xam ne moo ko téye ay keno keno yi Sëñ Tuubaa wax na ne ñe juróom-ñaar la ba tey arkaanuhu naarifu minha sab'a sumtan wa juuan wa jtinaabal bidaa wa وتوبة وسهرا وعزلة ثم استقامة فنعم فنعم الخصلة وزاد شيخنا اليدالي ثامنا taqwal ilaahi zaahiran wa baatina wax na ne juróom-ñaari ponk la am moom tasawuf keno yoo xam ne ci lay taxaw la ci la ci jëkk mooy fonk néewal ay wax ci lu amul njariñ rawatina noppi rek ci lépp lu amul njariñ ak ñimeeb xiif ak moytu bidaa ak saxoo tuub ak di dundal guddi ci xiyaamu layl ak di beru ngir jaamu yàlla ak sax ci istiqaama mooy ne cocc ci yoon wi nga xam ne mooy asiraatul mustaqim boole ca nag ragal yàlla ci lu fés ak ci lu nëbb kon loolu ci gàttal mën na ci xamee lan mooy tasawuf ab xaaj la boo xam ni ku ko génne ci lislaam génne nga jëwharul islaam ak lubbu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 ngir seen kaarnge garage walla magasin c 3 amee machine ak i outillage yu baax am na ay xeetu ver bu ngeen soxla ay plexiglas PVC ngir seen création wala décoration am na ay panneau composite alucobond ak ay profilé mur rideau ngir yokk taaru seeni façade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 Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn